dalena jam jàmm sen seen di Thiowli Buzz ki di président Macky Sall ak i ñoñam bañ xamalé sénégalais que né liñ dippé dialogue national dinañ ko amal ci réew mi di Sénégal mardi 30 mai 2023 te ci bir dialogue bobé liñ fa nam waxtané dinañ ko amal ci lu tollook ñaari semaine si dialogue bobé nak ki di président Macky Sall doon oté bokkoon na si ñu jëkko na may nopp ki di président Macky Sall waa parti bii di PDS bokkoon na ci lu sabab loole mooy que ne waa parti bii di PDS ci élection présidentielle 2019 yi ñu génn ñoom seen candidat bii di Karim Wade bokkul woon ci élection yooyee lu waa PDS moon ci dialogue national bi nag mooy que ne kii di président Macky Sall daal di bàyyi seen candidat bii di Karim Wade daal di bokk ci élection présidentielle 2024 yi ñu jëm te ci loolee ñoom bëgguñu ñu amnistie kii di Karim Wade waaye li mu bëgg mooy que ne kii di président Macky Sall jaaree si yoon daal di setal kii di Karim Wade ba mu set te li ni mel dina ko doon may mu daal di bokk ci élection présidentielle 2024 yi ñu jëm. waaye ginnaaw ba mu desee ay ngir ñu amal dialogue boobee waa PDS dañoo mel ni que ne dañoo bëgg a bañ a dem daal di uyu kii di président Macky Sall si dialogue boobee. ndax buñ sukkandikoo ci journal bii di indépendant moo ngi xamal sénégal yi que ne waa parti bii di PDS. nee nañ ba tey jotaguñu benn feuille de wala benn agenda bu leen di wax que ne buñ demee ci jaloog boobee lii lañ fay waxtaanee wala lee lañ fay waxtaanee te ñoom ñooñee duñ dem di gëmm seeni bët ba noppi di toog ak kii di président Macky Sall di waxtaan ak moom luñ bëgg nag mooy que ne kii di président Macky Sall na leen jox euh, ay points yi nga xam ne ne bañ fa demee foofu ci loolee lañu war a toog waxtaanee ci.